dañ leen fal ñu tànn leen ngir ngeen utal jiw béykat yi ngeen utal machine njiikaay béykat yi machine agricole yu doy béykat yi au lieu ngeen def loolu ngeen jël suñu xaalis di si fay ay nekk au lieu ngeen def loolu ngeen jël suñu xaalis di si jënd ay jaasi di si jënd ay fetal di si jënd ay pick-up di si yàq ay nerf yi di ko jox

quinze mille villages dix mille semoirs maanaam du sax dëkk bu nekk benn cinuwaar ana xaalis bi jox ngeen ko nerf yi ana xaalis yi jënd ngeen ko jaasi ana xaalis bi ñenn ci yéen waxuma yow de xaw ma dara ñenn ci yéen sàcc ko ana xaalis bi président Macky Sall détourné ko moo waral sur quinze mille villages cinq mille cinq cent vingt cinq 2193 ou occidentales, 15 000 villages, 246 charrettes UCF, 15 000 villages, niveau de fait 2023, bi, l'eau de Makita 797 charrettes face. 15 000 villages, niveau de fait 2023, bi, 606 charrettes mâles. 606 charrettes Notez Notre pays, les 15 000 villages. Lui, ce n'est pas la manipulation des sentiments religieux ethniques et confrériques débat lan Sénégal 2023 15 000 villages nous leen di de 246 quarante UCF villages 606 cent six charrettes mbaam lii débat Vous nous dañ ko sortir ñu ngi effectivement ay béylukat pas ay ay ko ay di xëccoo villages 797 maanaam juróom-ñaari téeméer juróom fukk ak juróom-ñaari fas ay béylukat ñoo xam xamuñu suuf suuf le débat monsieur le ministre ana engrais monsieur le ministre ah. béykat yi bëgg nañ xam bopp ren bopp bopp bu nekk ñaata kilo jiw certifié lañ leen a am monsieur le ministre béykat yi nee nañ bëgguñu rënd bëgguñu rënd de bëgguñu soos jiw bu baax bu certifié bu doy lañu ñu bëgg pas ay tunkanaa yoo xam ne d'accord pour rënd la pour soos la pour soos tere jiw la bëgg monsieur le ministre. Euh, yi mais gisuñu effectivement loi sur la réforme foncière là mais a parce que c'est un moyen d'enrichissement personnel campagne électorale yu bëri sàccum suufu ak sàmmkat ci lañ koy financé ñu bëri ñi nga ne démb plus sàcc suufu béykat ak sàcc suufu sàmmkat donc nañu taxawal béykat yi euh, monsieur le ministre euh, fii kenn du fi yokk benn mandat troisième mandat du fi am moo xam mandat cinq ans moo xam mandat deux ans moo xam mandat un an moo xam mandat une minute mandat une minute Macky Sall du ko am deux mille vingt quatre lay jeex bu ko xamee mooy jàmmam fii nag ku fi bëgg a waxtaanee nañu yokk mandat na nga nangoo dégg nañu abrégé mandat ku fi bëgg a waxtaanee nañu yokk mandat nangu nangu na nga nanguñu wax la ne yow sa mandat du egg foog mu leer de Macky Sall du fi am mandat ndaxte du bokk Ousmane Sonko day bokk Khalifa Sall day bokk Karim Wade day bokk ñëpp ñi nga xam ne dañoo nar a bokk dañuy bokk Macky Sall Bamba jërëjëf